suuratul anbiyaa moom lañ koy wax moom buñ ko seetloo ci wàcceb alxuraan mu ngi tolloog juróom-ñaar fukkeelu saar ak benn saar mooy saar woo xam ne wi ne indi na fukki yonent ak juróom benn ci saar wi mot ne ko nag jigéen ju baax du xam ne duwul yonent te mooy Mariama kon indi na fukk xisa ak juróom-ñaar benn saar dajale wala tool ni ñim dajale noonu ci ay yonenta lu may saaru lan am moom mi xam ne dajale na fukk yonentu ak juróom-ñett dajale ko ci benn place yi nag dajale na ko waaye da ko tasaare ci biir saar wi xataraba jegey na li naa si ñeel li ñu xisaab seen xisaab bis bi xam ne mooy bisab fi saade taxawee ñu di xisaab ni jege si na de jege si na ndax buñ seetee ci njëlbeenu àdduna ak suñ ko defee suñ ko defee moo gën a te xam-xama yàlla wala boo is kulli aatin aatin lépp loo xam ne rek dana dëkk ci yàgg-yàgg mu ngi dëkk lu jege la boobu ñoom mooy doon a wéytu mooy la ñu fee xam la leen ci càggan maayaatee mbitalu leen min sikkirin ci waare mela bi mu tukka ci seen borom moo desin boo xam ne dañoo sos ak wàcceem res tamoo dara boo xam ne déglu nañu ko woom te ñoom yàlla boo nañu lay fo ko leen alxuraan dëkkale aaya ci ñëw rek di xees aaya ñëw ji xees aaya ñëw ji buñ ko miin mukk ji dëkk rek ci fo lañ koy dégloo laaye tan daaji soxlaal xuloobuum seen xol yi seen xol yi du xaaja nekk ca déglu alquran joojale waasaroo nëbb nañu am nañu waa déyaale la ñuy déyaale ñoo di ko sikkalee la alquran de wax dañ koy nëbb àll si ñi xam ne solomoo tooñ nañu naxu miinu doon lii xam-xamu naxu miinu doon demir bisu misaaya du nekk badalam waaye def na ko ni mu ne wa asaroo waawoo mooy faayale asaroo allasina salamoo mooy badale waaw wi waa asaroo nëbb nañu am waa deeyaale ña ko nëbb ñooy allasina ñi xam ne salamoo tooñ nañu alxaasa ndax lee illaa basoon alxaasa ndax kii déet ilaa basoon ndare bi ndef leen mës lu ko bu mel ni yéen ñoomu leen bañ dégloo yonent yàlla Muhammad seetaan ko déglu ko dañoo dem fële taxaw fële day yor lante ñoomu neen ñu ne kii de moo eh, seen la rek li ma wax ni yéen ñi mën ngeen koy wax njeebeer lay def de afataatoo ndax yéen da ngeen dikkee asneena njeebeer waa antum ko yéen tub si doon yéen a ngee gis ngeen ko topp noonu ngeen ko seetaane de xam ne ni njeebeer ngeen ay seetaan su ngeen ko royee xam leen ne njéemakat ngeen roy loolu la ñuy wax kon ne leen rabbi sama borom yaa la mu dana xam ah dana xam alxala wax fi samaay ci asamaan wala addi ak suuf boobu moom sa meew aji dégg la ak mu aji xam la bu ngeen beroo de yollante yéenu ne itam xam leen xam na li ngay li ngeen ay fi nekk xaala waxaan nañ leneen ñu ne li muy nett li nii alxaasu en laamin ay jaxasee gént la ñeneen wax ne ba li fi nekk instauré wu fent na ko ñeneen wax ne ba fi nekk wu moom aju woykat la jëpp pexe moo xam ne daal yaakaar nañ ne buñ ko waxee ci sikkalee ko li alxuraan ji wàcc yent yàlla mu am ba rek dana tax nit ñu jox ko gannaaw wax nañu ko nee nañ jeeweer la nee nañ ay gént la nee nañ da ko fent nee nañ woykat la bu tekki ne faliyaat naa na dikkee ñu bàyyi ci kaawteef kama usule naka yónnee woon al awala la way njëkk ya ñu njëkk ña amoon nañ ay kaawteef nañu indil ay kaawteef alxuraan ne leen ñu njëkk ña ba ñu indi kaawteef it da ko laajoon gëm taxutoon ñu gëm ba kon dana jar ñu leen indil kaawteefam maa amana gëmu doon de xablahum njëkk leen min xaryatin benn dëkk boo xam ne ahlak naa alagoon nam nam nañ ko alag ak moom ndax ñoom yooyu noonu dinañu gëm njëkk ña de laajoon nañ kawteef waaye ba leen yàlla nar a alag gëmuñu ñoom ñu ñu ngi ko laajaat waaye bu feeñoo itam du leen tax a gëm ba ma asanaa yoon nañu xabla ko ci njëkk sa ilaa rijaalan dara góor yoo a ah yoo xam ne def na woyu ileen jëm ci ñoom fasaloo laaj leen ahlal zikri ñañ ñi leen jiitu woon ci xam-xam te mooy ñi nga xam ne amoon nañ tawreet amoon nañ linjiil da ngeen leen laaj bu ngeen leen laajee dañ leen wax ne yonente yi doomu aadama la ñoon mosu ñoo nekk ay malaaka yéen kon doom nem nekk ngeen laata la moo du xam <laughs> waajaal naa am defuñu woon mala yonente yi jësa dañ ñuy jëmm yoo xam ne laa lekk ataama ñam yonente yi dañ daan lekk de bu leen sikkalee ab yonente ne dafay lekk kon comme ñun la ba maakaanoon nekk ñu woon xaalis dañuy di koy bel bu leen sikkale bu leen tëkkoo ab yonente ne ko da ngay dee ndax yonente yu njëkk yi tam faatu woon nañu kon ab ko sikkalee ne dafay lekk ndax yonente yi dañ daan lekk ak yonente bi ñu ko tëkkoon ne ko da nga dee ndax yonente yi fi jiite woon faatoo woon nañu su ma sa tax naa am topp ñu doyal dëggal leen alwan de dale dañ daan lekk te leen yàlla digoon defaloon na leen ko dañ daan faatu te leen yàlla digaloon defaloon na leen ko ba antey naa mosal nañu leen ba man ak ñi nga xam ne nasaaw soom nañu ñu mokk ñu bokk ci mucc ga waa xalak naa xalak nañu ne almasrifiina beew ya way yàq ya te yonente yi mucc nañ ñeneen gëmaloon mucc nañ ñeneen weddi woon te beew xalaku nañu laqad anzalnaa wàcce nañ ilaykum ci yéen yéen xoraysin kitaaban téere boo xam ne fii nekk na ci sikrukum seen tiraanga ndax gannaaw alxuraan yi ci seen làmmiñ lañ ko wàccee wàccee ko ci seen dëkk wàccee ko ci seen xeet yi alxuraan yi seen tiraanga mu ngi ci afalaa taqiluna xanaa du ngeen xelu ab dëkk nekkoon na faalimatun di aji tooñ waan soo naa ñu sos aw aaxari na ñeneen wala ma axasoo ba ñu yëgee bas naa suñu tiis suñu mbugal bisaawam yëguma lu muy ñoom yar ñu ngay cocc di daw minaati tukkee ci mbugal ma wala di tukkee ci dëkk ba ñi leen jiitu woon amoon na fi ñoo xam ne ñu ne dañu doon tooñ borom bi tabaraka wa taala da ko wéddi de bëri ay bàkkaar ñu xalak leen beneen xalagee yàlla dellu sufaat beneen mboolo mboolo mooma nekk fi wuutu leen ñoom itam bañ demee ba ca kanam seen bàkkaar bëri bañ jegee ne alkandek yàlla mu ngay ñëw ñu commencé ne dañuy daw mën na lañ ko dawee gannaaw ñoom ñoo def lu waral ñu alak leen laatar kuloo bu leen daw bu leen caju war ñoo dellu ilaa ma jëm ci la nga xam ne urdiftum bànneexoo ngeen fii ci moom wa masaakinikum kaay leen ngeen dellu ci seen dëkkuwaay yi nga xam ne fu ngeen tooñewoon yàlla foofu la leen dugal may fekk naa la ko xamante ngeen te solo des na laaj leen xaala ñu ne yaa way la naa woo nañu suñ toroxte inaa naka ñun ku ne nekk nañ saali mu ne way tooñ yéex nañ koo xam di yéex nañ koo nangu di yéex nañ koo wax di ndax ba alkande ñëw ñu doon wax ne ñun dañ doon ci tooñaange lañ newoon fama salat dañu tilka loolu da waawoom seen woote yaa waylanaa innaa kunnaa saalimiin ci loolu la nekk nekk ba alkande ga ñëw bool leen ñoom ñëpp xataa jaxal naa ba ñu def leen xasida ñu mel ni tool buñ góob xaami dine da way jiif fama xalax naa bi nuñu asamaan asamaan wala suuf wama baynahuma li nekk diggante asamaan ak suuf laay doonante mooy po la war a naa bu ñu namoon an na taxasa ñu jàpp la woon po la taxas naa ko ñu jàpp ko melut naa si ñun ñun ku naa dem nekkoon nañ saa yeneen de way def asamaan ak suuf ñoo ko bind bind wuñ ko ci fontu fekkonte ne dine fontu yitteel na ñëw kon doon nañ ko def te du ngeen ko yëg te du ngeen ko xam du ngeen ko fekkee waaye loolu du suñ mbir balle fi nekk naqase bu ñu sànni balaa ko ci dëgg alal baat di jig neen neen daal fu mu fi bulee dañ dañ jël eh, dëgg sànni ko ci kaw neen neen jeex dëgg des fa waaye ndoxoo mu mokkal ko fay saawa du ndeke moom neen saa yaxoon aju mokk la bu fi dajee ñoom ñaar daal ñoom yàlla dañuy jàppale dëgg ba dëgg gaye neen neen mu mujj sottee ko sunguf wala ko ñeel leen yéen nag ñun ñi nga xam ne gëmu leen loolu àndul leen ci alway lu tooxte ni ma ci la xam ne te si bon yéen a ngi koy melal te fekk duwul lu nekk wala ñeel na borom bi man fi samawaati képp ku nekk ci asamaan wala ad ak ci suuf yaa ngi fa nekk nekk ak moomeelam ba ma neen daw ak malaaka yi nga xam ne ñoo nekk fa yàlla itam ay jaamam lañu la yastakbiruuna ñoom du ñu rëylu anee baal fii ci jaamoom wala yastaghfiruuna te duñ ci sàgg duñ ci duñ ci sonn du ñu ci jaamu yàlla du ñu sonn ci jaamu yàlla ñoom dañ cee sax rek waxtu wu ne yusabbihuuna ñu ngi sàbbal al-layla guddi wa naar ak bëccëg la yafturuuna du ñu doggante malaaka tasbihu sàbbal mooy ne mooy noxi mi nga xam ne doomu aadama ne na ngelaw di ci bakkanam di génn te du ci am benn coono te du ko yëg sax malaaka seen sàbbal noonu la mel mooy seen dund amit taxasoo ndax jàpp nañu aalihatan ay borom min minal ardi ci suuf moom ñoom ñu si doon dañuy dekkal ndax ñoom keneen yi ñuy wax nii ndax mën nañuy wax ne mën nay dekkal ku dee loolu de lu ñu wax wax duñ ko waxaale law kaana bu nekkoon fii maa ci asamaan ak suuf aalihatun benn yàlla illallahu ndare borom bi la fasadata kon asamaan ak suuf dana yàqu asamaan ak suuf li ko fi bàyyi moo ne kenn ko moom waaye bu fekkoon ne ñaar doon nañ ko xëccoo kon ba mu yàqoo yàgg na lépp loo xam ne ñaar nañ koo xëccoo rek gis nañu du fi yàgg du fi bàyyi asamaan ak suuf moo de kenn ko moom te mooy borom bi subhaanallahi tudd sell borom bi dafa naa si borom aras amma ci la nga xam ne yusufoo na ñu koy melal laa yusalu defu laaj amma yafaloo la yàllay def coobareem ci la koy defee sañ ci la koy defee boo ñoom nag yusaloona def na lay leen lu tax ngeen def nangam yàlla kenn du ko xisaab ci li muy def kenn du ko laaj lu tax kenn du ko laaj ba kañ la kenn du ko laaj nan la waaye ku dul moom loo def dañ laaj lu tax nga def ko ak kañ nga ko defoon ame taxaso ndax jàpp nañu min dooni wëndis borom bi aleatan ay yàlla kon leen xaatoo indi leen burhaanakum seen lay yi ngeen a layee ne kii yàlla la xaasa lee zikru man mooy fàttali ñi nga xam ne may xam nañu man wa zikru man ak fàttali mi nga xam ne xam ne jiitu woon nañu ci ay yonenta ba fi nekk ak moom li bëri ci ñoom ñoom ñu di wéet ak wéddi yàlla di jaamu ay xereem laa yàlla moon xamuy alxaqa dëgg dañ ko xamoon bàyyi xereem dañ ko xamoon bàyyi jaamu lépp loo xam ne ni amul leen njëriñ moom ñoom mooy doon way du mooy lañu way du mooyu lañu wa ma arsalnaa ñu min ci njëkk sa maral ko leen benn yonente i naa ñoo xaandale boo xam ne des na woyu ilay jëm ci moom an na naka lu mu laa ilaa dit benn buur bu xëy jaamu ila ana ndare moom a yónni wax na kon ne ko na waxal ni ñi ne leen amul kenn ku ñu jaamu lu mooy man mëne damay seen borom sama bu doone na ngeen ma jaamu man kenn maa ko xeyoo ku ngeen fi mën a jaamu man maa ko bind waxaala ñu ne a jàpp na arrahmaanu wala dan doom kaawtee wax nañ lu rëy ëpp na làmmeñ subhaanahu na ma sell ak yàlla ban la fi nekk ñu ñuy wax noonu te may malaaka yi bu ñu ay doom de xibaarun ay jaami yàlla lañ mu ko demoon ñu di ñu teral laayes bi xoona xoon duñ jiitu yàlla bil xawli ci wax waxum ñoom yax yamaloon dinañu jëfee daam ci ndigalal yàlla yàlla ma danga xam yàlla ma la nga xam ne bay na ay di nekk na ci kanam malaaka yi ndax mooy nay sant mooy nay tere ba maa xal foofu ak nekk seen gannaaw wala yas fa woon malaaka yi duñ kenn kenn illaa liman dara ñeel koo xam ne ittu daay yàlla gërëm na ñu tinu ko moom ñoom malaaka yi mës xoon way ragal lañu min xasee ci ragal yàlla dañoo mës xoon way lañu mun xasee yi ngir ragal yàlla seen xel daje kenn ci ñoom malaaka yi mu naan yàlla laa waxamoon waaw yaqul ko waxoon meneen ci ñoom inni naka man illaa an laa min doone wala ci yàlla wa loolu lam doon doon doon malaaka du tee du tee nañ ci dañ ko fayee jahannama jahannama waaye ñoom duñ ko wax xalaatuñu ko bëgguñu ko te naka ndi naka nii najj si la ñuy saalim ñu ne woy tooñ woy tooñkat yi itam nag keneen ku ci wax rek la malaaka sañu wax doomu aadama yoo xam ne kenn ku ci jàmbaar boo wax ko dañ ko defal yow awalam yara xanaa gisut àllaseen yoo xam ne kafaroo wét nañu ana samaawaat nag asamaani wal ard ak suuf si kaanataan nekkoon nañ rat kan bi ajit takkalante ba fa takk naawuma ñun ñoo leen xarlante ñoom ñaar ñu ngi naan suuf juróom-ñaar naan asamaani juróom-ñaar xanaa yëgoon ne li mu nekk noonu ñu doon compte balaa juróom-ñaari asamaan yaa ngi nii bu njëkk dafa takkalante woon ñu doon ko compte nii banaan lii asamaan la lii suuf la bu njëkk dafa takkalante woon ñu doon compte nii banaan juróom-ñaari suuf yaa ngi nii bu njëkk dafa takkalante woon benn jëmm la woon jëmm jooju moom la borom bi tabaaraka wa taala xar lii mu def muy asamaan su njëkk laa mu def ko asamaan su ñaareel asamaan su ñetteel su asamaan su lale mu def ko suuf su njëkk suuf su ñaareel suuf su ñetteel suuf ba mu àgg ci suuf su juróom-ñaareel waaye bu njëkk ay lenn jëmm jëmm la woon jëmm jooju moom la yàlla xar jëmm ji reyoon na ndax benn kenn ci ñun ci xaree rek kenn ci rek reyaayam doy na yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na suuf ni mu mel ci asamaan su njëkk si mu ngi mel sa jaaro bi nga dem ba ci ndend ka musuñ na ko teg ko ci digg àll ba na àll ba gën a yaatoo sa jaaro bi noonu la asamaan gën a asamaan su njëkk si noonu la gën a yaatoo suuf si asamaan su njëkk si ak asamaan su ñaareel si muy ëppante mu ngi mel ne sa jaaro bi ak ndend ka su ñetteel sa ak su ak su ñaareel si noonu la su ñaareel si feeg baa ngay àggee ci asamaan si juróom ñaareel noonu la mel ci kursi yu kursi yu noonu la mel ci aras wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa man manam suñ borom yaatu xay ak ak rëy ak sañ moom rek moo xam lu mu toll ndaxte dend ak sa jaar bi de ak plante nañu de seen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lan leen dañu ëppee sa jaaru bi asamaan ëppee na suuf lu ko asamaan su njëkkati rek dafa ëppee morom ma wajaala def nañu minal maay ci ndox ku la sayin lépp lëf xayin lu aju dund lépp luy dund rek mu nga juddoo ci ndox ndox am na ci cër afalaa yooyu ne na xanaa dañu gëm lépp luy dundoo ndox am na ci cër dem na sax ba jëmb ji nga xam ne ak oto buy daw la nga defee ndax ay weñu neen la da nga dema dem ba ci kanam nga gis ne ndox am na ci cër mais ndox ba ndox ba ndox ma jeexee rek nga gaato gaatu wutal ko na benn waaye bu tawatuloon benn docteur ne ko moom tuur tuur loxoom dafa jege ñaante fekkee naa ko docteur bi laaj ko noo de naane ko ko mu ne ko li ngay naan dafa tuut li ngay naan lu tuuti mooy tax ngay do ngay ngay eh, saw saw saw da jege ñaante dañ naan ndox mu bëri mu ko nit ñetti xaaj la ñaari yi ndox lañ benn bi ndox a koy dundal nit ñetti xaaj la ñaari yi la benn bi ndox koy dundal dañ naan ndox mu bari nee na ba mu ko tàmbalee rek da ne bu soxlaa tuur ndox dana dana tuur lu bëri su ci bayee ko dana di dana toog lu yàgg doon soxla tuur ndox waaye boo ñëwee ci aaya ji ne li docteur bi wax niroo naa noonu nga ñetti xaaj la ñaar ñi ndox la benn bi ndox koy dundal dan naan lu bëri wajaala def nañu mel maay ci ndox ku la seen lépp lépp xay yun lu aji dund lépp luy dund rek am eh, ndox am na ci cër afalaa duñu gëm wajaxal naa def nañu fi di ci suuf rawaasiya ay doj yoo xam ne yéene ay dénd la ante wéer a ngir bu mu jaayoo addiyam ci ñoom wajaxal naa def nañu fi laa ci suuf si tijaajan ay mbedd muy ay yoon su bëlan muy ay yoon nga xam loo xamaan ne ñoom ñett duñu dindeeku nga xam ne ñu ne yàlla mel eh, seen xam-xam àgg nee nañu moom dañuy gën a xoyofante di gën a diisante su ko defee yàlla ci xenu gi nga xam ne gii nii moo xenu suuf si bu may tabax suuf si fu mu gis ne nar naay nar naay jéng xoyof rek bind na fa doj fu mu gis ne nar naay jéng ngir disaay bu jéggi dayoo def na fa saleñ moo tax foo dem boo xamee ak xamut doj am na fa yow kay yaay am na place yoo xam ne yii nii dafa feeñ ba nga di ko gis am na place yoo xam ne yii nii da koy gas doo koy doo ko jot waaye doj ci yàlla def secret bi tax suuf du bang bangi doj ci la yàlla def secret bi tax ndeyjooru suuf du fekk mukk càmmoñu suuf càmmoñu suuf du fekk mukk ndeyjooru suuf ba jaxal naa nañu fi daal di suuf ay doj yoo xam ne ay gént la antamire ngir bu jaayu xat bii ñëw ndax suuf bu jaayu ba jaxal naa nañu fi ay yoon laa loo xamaa ne ñoom yett noonu duñu bindeeku ba jaxal naa def nañu asamaan asamaan saqafan muy teeg ma foosan ba de bu wat asamaan see def nañ ko muy am mbaar mu leen tiim yàlla wattu ko du daanu mukk moom ñoom kawteef yi bëri na de moo doon woy du mayu la ñu an ayaat an ayaat ci ay kawteef yi asamaan moom moom borom bi àll si mooy ki nga xam ne xalaxal bi na al al-layla guddi wa naar ak bëccëg wa samsa jant bind na ko wal ak weer moom mooy ki nga xam ne kii moo bind guddi bind bëccëg bind jant bind weer xuloon képp ci yii yes ba woona dañuy feey ci falakin ci falak falak ñu ko doon misaal dañuy wax ne mooy raay bi nga xam ne ci la jant bi dox mooy raay bi nga xam ne ci la weer bi dox gannaaw bu nga xamee ne jant ak weer am nañu ay morom yuy dox ni ñuy doxee ni ñoom daa ñu koy wax zoxal bi ñu ko Zuhra lu mat Mbariix ak Otaabit te yëpp dañuy yore ay ay kawaakibu sayyaara lañ leen di wax ay biddi yoo xam ne yii nii dañuy dox kenn ku ne nag da yore sa falak ak bopp boo xam ne benn ci ngay dox nag ci waxu wolof am na ñoo xam ne ñu ni eh, duñ ko fàtte gisoon nañ ko ba ñu am na ñoo xam ne ñii mën naa am gisuñu ko woon gosoon dañ ko daan dox jigéen ñi daan xicc ñoo ko daan amee bu ñuy xicc nii sëñ baabu ana sa bi déedéet ana sa caabi caabi bi caabi ji mu def lu mel ni ban bi waaw kooku mooy fole mooy doon fole wala damay mel ni kul kuratu damay mel ni ab bal waaw yàlla nag moo xam nan lay demee ak nan la ci jubbi doxee ak na ci asmaan yi doxee waaye nag baatab wolofal bi ñu koy firee loolu daan mel daal dañuy am fole boo xam ne benn ci la ñuy doxee ku doon képp ci ñoom ges boo nañu ñuy feeñ ci fëlëgam ci fëlëg am nañu boo xam ne bii ci la ñuy dox la samsi yan baxee la antusikal xamara wala laylu saabiqan saabiqun naari kenn ku ne ak sa dawilu wa maa jaxal naa dafa ñoo lebasa da ñeel benn mbindeef min xable ko ci njëkk sa alxulda benn mbindeef yi la si woon amul fi kenn koo xam ne fii ñu def fi dee def fi nekk ñu ne du dee mukk kon jarul ñu naan yow mi yàgg-yàgg danga fiy bayee ko loolu di la jaaxal afa imita ndax yow mi boo faatoo ñoom ñu ne naan da faatu da faatu foofu ndax ñoom xaay doon way doon nañu mu ne ma fi nekk la na seen bépp bakkan zaa'iqatul mawti aji mosu dee la wa nabluwukum danañu natt leen di sori ci xay wal xayri ak xiiwu fitnatan natt muy fitna dañ leen teg loo xam ne sooru laay doon di xay di xam da ngeen teg loo xam ne jàmm laay doon di feet boo xam da ngeen santam déet waaye naa jëm ci ñun képp képp kuy jamono na def delloo leen ku fi xëyati jëm fa yàlla nga jëm ku fi gontee fa yàlla nga jëm waaye saaraaka bu gisee ne àll si nga xam ne kafaroo wét nañ yettaxi soo ko den ñu jàpp la isa ilaahu sa an dara yëjji xaasa la seen ndax kii mooy ki nga xam ne yestu dana tudd alihatakum seen xërëm yi waxoon ñoom kaafiroon a way wét lañ di fikri rahmaane yàlla de tudd jaamu yàlla tudd jaamu bi ñi nga xam ne ñeneen la seen kafaroo dañuy weddi yàlla bu la rombe ci mbedd mi yaa ngi waxtaan ak say saaba bu la rombe ci kanam bi yaa ngi jàngale bu jullee kii kii mooy kii la ñu wax ne mooy ayibal xarit xaasa la fi yasturu alihatakum ki lañu wax ne mooy ay bokkale bi moom ñoom kaafiroona wéet hum ñoom kaafiroona wéet lañ di fikri rahmaani gis digg ñuy tudd yàlla wala xam ne nee na al insaanu lim min ajalin ci yàkkamti doomu aadama dañ ko bind ci yàkkamti bu dee jàmm yàkkamti na ko bu dee musiba yàkkamti na ko même musiba sax doomu aadama da koy yàkkamti uriikum kasi naa ne naa leen wan ayaati suñu kawteef wala te san jëloo ne bu leen yàkkamti jëloo yàkkamti lu ñu wax ne dana dëkk fooga rek xamoon ne dana dëkk xalaqal insaanu min ajalin bi nee na al insaanu ni mu ajalin fi yàkkamti dama adama moom yàlla da ko bind fi yàkkamti rek bu dee jàmm yàkkamti na ko bu dee musiba itam yàkkamti na ko te uriikum kasi naa leen ay wan ayaati sumay kawteef fala tastajiluuni bu leen ko yàkkamti jarul yàkkamti lu mu dana dikk rek xamal dana dikk yàkkamti nañ ko ba waaye xoolal ah, danañu wax mata xaasal waandu dale bi la ñu naan dana dikk dana dikk kañ lay doon seen ko doon dem rek ngeen yéen julli yi saa dafa da way dëggal alxuraan mu ne ndaw yi anam boo xamoon àll xam ne kafaroo wét nañ xëy na laa yëkku poona waxtu ba nga xam ne duñu mën a fekk an wujjee yi ci seen kar kanam an naal safara wala an soxoor yi duñ ko mën a fegal seeni gannaaw wala am di caagin ñoom ñu su doon def dimbali leen bal li fi nekk mbugal mi taatihim daf leen dikkal rek baxtun ci mbetteel fa mu jommal leen wala yastatoon du ñu dellu mbugal ma wala hum du caage ñoom yun su doon def muñal leen su xam teewlu woon nañu ko duñ laaj ne mbatee aasul wax du bu ñu xamoon boo xam ne benn bu mbugal jëmee ci seen kanam duñ ko mën a jeñ bu jëmee ci seen gannaaw duñ ko mën a jeñ suñ laajtee ndimbal du ñu am ku leen dimbale mbugal mi ci mbetteel la leen ay dikkalee jommal leen duñ ko mën a jeñ te duñ leen muñal duñ xamoon ne loolu dana am duñ wax mukk mate aakul wax in kuntum saadiqiina ba nga xam ne yàlla ci yàlla musal kon ne leen man yàkk lu man yaklaukum kan mooy ne wat wala xadus tunsi a yëggees na jële ci ci ay yonente men xam le ci njëkk bi la jaaxal defoon nañ ko fi ay yonente kaaka wàcc jële ci leen ci nga xam ne saxiroo yëgg nañu mën a xam ne kaana nekkoon na yëpp tansi ona di yëgg di yëgg moom kon na kan yaklaukum mooy nay wat beneen ci guddi kan mooy nay wattu guddi yàlla wan na xaari bëccëg kan mooy nay wattu mun a maane ci kat ci dogalab yàlla dogalab yàlla buy dikk guddi ku leen cee wattu xanaa yàlla dogalab yàlla buy dikk ku leen cee wattu yàlla ba defe nekk moom ñoom mooy doona woy du mooy lañu xas sikkiri rek dinañ fàttaliku seen borom waaye bu ñu doon fàttaliku yàlla dañ xam ne mooy nay wattu ci guddi mooy nay wattu ci bëccëg am na ndax ñeel na leen alihatun ay yàlla tam na moom yoo xam ne dana tere leen mën doon naa walis ñu ñu suñ leen naawoon alak ndax dana xam yàlla yu leen mën a làq daye sa si on duñu man daf sa am seen dimbali seen bopp wala am du caageen ñoom gis xaboona deefa xettali leen gis xaboona deefa xettali leen bi naa ci ñun gis def na xettali leen ménage yi ñun bana mu ne baat bi li woon ci saanu baat bi walla moom du caageen ñoom yi saboona def na def leen àndandoor mën naa bañ mucc ci ñun te àndandoor nag lu ma jëlee yëpp mooy xettali moo tax ñu ne mu firee ko moom téere bi ne walla moom du caageen ñoom yu saboon a dee fa xettali leen mi naa ci ñun ñu leen duñ leen naroon a dal ci leen ko itam ñu duñu am ku leen xettalee waaye ci baat bi koy ànd lay fi bi bale fi nekk matanaa bànnee xal nañ xawlay ñi waa baaw ak seen bàyyi dañ ak seeni bàyyi ñu ci lañ dañ leen eh, xalal àddina ci bànneexoo xataa taala ba yàgg aleyhim alhamuru dund ñu gudd fan nag yàgga bànneexu ci àddina ñu mujj nag defe ne lu ne mën nañ ko du noonu de bi saboona mu ne imaam mu daare o saxaba o xand naag moom bu jaxasoo moom walaasumoo te mu tokk ak moom te mu ne wasuma bootu xàndaale parce que lii dafay waral ànd ak sa dimbal wataay bi ak ndëgëral moo tax nag mu ne laa laa yasxabuhumullaahu ay laa yu ayyiduhum du leen dimbale wala hum du caage ñoom mën naa ñun ñi sa bona defu dimbale leen rekk ci saanu baat bi ànd lay firi waaye ànd dimbalante lay jëriñ afalaa yarawna xanaa gisuñu ana naka ñun naat yi danañu dikkee al arda suuf nan ko soo danañu wàññi ko min arrafiha ci ay peggam aboom ndax ñoom xaali boo ñu mere way not wala in massathum kon ne innama unsirukum naka danaa waar leen bil waxyu ci waxyu wala yasmahu du dégg asummu aji tax adduha ay woote isaa maa ngi soroona bu dee fi waar leen ku tax boo koy waar itam du ko dégg ku weddi bu ko yàlla bu koy bu koy xooj yàlla itam du la déglu wala in masatum bu leen laaloon nafatun mbugal mën a saaba dugg ko ci mbugalam sa borom léegi xoolun na moos nañu wax ne yaa way danaa na suñ ko waxte dinaa ñun ku naa nekk nañ faali mu ne de tooñ yamal xiyaam wan na daxoon danañu teg almawaasi na ay peesekaay alxest mu maando li amal qiyaamati ñaal di penc wala tuslamu defu tooñ nafsun benn bakkan sooy dara loo fa yóbbu dañ la ko fayee nañ ko defee woon dañ koy peese bu pare xam nan la mel peese kaa yooyu xanaa doon nañu jaaxal ndax jëf nan lañ koy peesee siikar nan lañ koy peesee naafila guddi nan lañ koy peesee digle lu baax nan lañ koy peesee tere lu bon nan lañ koy peesee yëpp jaaxaloon nañu bu yàgg yàgg yàgg bu nga xamee ne ñu ngi jàpp ne dañuy peese ak xen lay doon nga da ko teg ci peesekaay bi da ko gis mu da ko peese jamono yooyu dañ waxaat ne dañ peese jëf dañ peese ñaan dañ peese dañ peese jotaay boo toogoon dañ peese julli ko julli woon dañ peese koor ko wooroon jamono yooyu loolu doon na leen jaaxaloon nañu waaye ñi nga xam ne ñu ne fekkee nañ ñuy peese ngelaw fekkee nañ ñuy peese leer fekkee nañ ñuy peese courant fekkee nañ ñuy peese le téléphone de wax ñoom xam nañ ne lépp rek peese mën nañu dugg ñu fekke ko doon loolu ñoom la jaaxaloon waaye gannaaw kàddu gi ngay wax ci téléphone bi sax téléphone bi mu ngi koy peese boo waxee lu tolloog poids bi nga mu ko doot ko jëlati mu ngay peese mu ngay peese lépp ngay peese kon kay yombal xiyam lépp dañ ko peese wala aatu doomu dee bu tooñ na sun bakkan dara wayen kaane bu nekkee lañ fa yóbbu misqaala xabbatin te tolloog pepp mën xadalañ ci pepp mu ndajje nga xam ne moo ko a tuuti ci pepp yi la nga yóbbu àllaaxira bu tolloog moom koyet atali naa dikkee ni ñu gaa ci moom koyet la nga peesakaay bi dana ko indi te yëpp dañ ñu ngi koy gisal suñu bopp ci jamono peesakaay yu xees yi la wa kafaa doy na bi naa ci ñun yàlla xaasibeena way xisaab xisaab kay nee na ci ñun la ci ñun yàlla kay foofu rek la waaye liñ ci gisal suñ bopp suñu néew doy na sëkk sëkk sëkk sëkk bal xanaa day naa dikkee nañu Muusa wa Haaroon alfurqaan alquran wa diyaan dikkal nañ ko leer wa zikran dikkal nañ ko waare lil muttaqiina ñeel ñeel way ragal yàlla yi xale si ñi nga xam ne yax sana danañu ragal rabbuhum seen borom bel xayb ci fàddu waxum ñoom mos bi way ragal lañu mën a sanaati ci bis penc mën a sanaati dañ ko dee wax jublu ci bis dañ ko dee wax itam ci waa saa lii nag yow yonent yàlla Muhammad ñu jox la ko zikrun fat ñu la zikrun alquran la mubaarakun ba de buñ barkeel ansal naa wàccee nañ ko ñeel la yow ak sa xeet wi afa antum ndax yéen mëntu doon a way weddi ngeen doo ñeel ko ndax da koy weddi su yonente lañ bëgg ak juróom benn ak benn soxna su baax amaale nañu ñaari yonente wala xadaa tey naa ndikkee nañu ibrahima ibrahima rusudoo njubam min qablu ci njëkk ibrahima moom ba muy gune toll ci fukki ak juróom benn boobu la ko yàlla yee jubal ko xamal ko teg ko ci yoonu njub bu ko naa nekkoon ay aalime da da woy xam dee ci Ibrahima ne ko xëyoon jubal la ba teel nañ koy jubal xaala ba waxee li abi ñeel bàyyam waxaw mi ak nitam ña maa mooy yi lay misaal allati yi nga xam ne antum yéen xaakifoon waaye sax ngeen laa ñeel ko jënd yi ngeen samp fii dafa wër lii lan la xaala ñu ne ko wajan naa fekk nañu abaana suñu bàyyi xafidine di ko jaamu ko suñu bàyyi de ñoom lañ fekkoon ñu di ko jaamu xaala mooy leen laxat ko ndum nekk ngeen antum yéen waa baa ko ak seen bàyyi ci di laan jig réer mu jëm ba aju génn kàddu ga bett leen lool ñu ne ko Ibrahima set li ngay wax da ngay foo am dëgg ngay wax xaaral ñu ne ko ajeti naa ndax di koy ñu jël xàq ci dëgg am anta wala yow sax mën na laayo ne nekk rabbukum seen borom rabbu samawaati mooy borom asamaan yi addi ak suuf ala see borom bi nga xam ne fàttali moo bind asamaan ak suuf wa ana man man a saa ne bokk naa ci koy seede yéen ala saalikum ci loolu li ma leen wax nii kàddu ko rey ci ñoom lool ñu dégg loo xam ne moom ñu koy dégg foog ñoom dañ ko dégg itam ba tegal leen ci ne watan laa gi naa ci yàlla ne laa ki dan na danaa saxeel asnaama ko seen xërëm yi naa ci sàkk pexe de ba daan te walloo gannaaw bu ngeen dëddoo mbët bi dangeen di koy joxe gannaaw danaa am bés boo xam ne bu ngeen dangeen ko fekkee danaa wet ak ñoom sàkk ci ñoom pexe kere ba nga xamee ne bii nag bésab seet ba jot na ci bis boobu ci la demee ci place ba ñuy seetee te balaa ñooy dem dañuy togg ñam yu bëri taj ko ci xërëm yi ba ci ko fi ñëwee ndax baa ñuy dikkee dana fekk xërëm yi barkeel ko su ko defee ñu door koy lekk ba léegi dinañ ko dinañ seetukaay ba nag su ñoom ñëpp koy dem Ibrahima wane ne moom dafa tawat manta dem dañ génn ñoom ñëpp ba dem ba des moom kenn ñu des seen meñ yu ndaw yëpp yëpp yëpp mu dagg leen def leen poñet jëfe nañu nag yëg ko ci xerem gu mag bi ba njëkkee ci lool ñu ne lii ku ko def lii ku ko def ñaa am na benn xale boo xam ne de doon na wax ne dana ci sàkk pexe ñu ne Ibrahima la dem leen wooyee ko ñu wooye Ibrahima ba Ibrahima ñëwee ñu ne ko lii lan la mu ne leen xerem gu mag bi moo kii rek crème yu ndaw yi ba ngeen bëggee rek la crème gu mag yi jël seen meññ daggaata crème yu ndaw yi. ñu ne ko kam nga ne crème gu mag yi mënta dagg crème yu ndaw yi mooy leen kon am lu ngeen ko jaamu. pañaa loo mu def leen duraatun poñet ilaa kabiiran dara aji mage loo ñaa leen laa loo xamaa ne moom yëg na ma dana ñu wàññeeku dañ di ñu ne xaaloo man fa ala saaku def lee bi alihat naa ci yi innahu bokk na ci tooñkat yi ku def lii xaala ñu ne sa minaa dégg nañu fatan ndaw dégg am na ci ndaw yi koo xam ne yaskuru mu ngi leen ay tudd tuddin bu ñaaw amoon na ci am na ci bini yi de koo xam ne ci nii mu ngay wax ca sele mi wax yu ñaaw de ndaw loolu de yoxaal def na wax loolu ñaaw ko Ibrahimu dana dem leen seeti ko dem leen seeti ko dem leen seeti ko xaala ñu ne faatoo liggéey leen bi ci moom ala ayinu naas yi ci teewaayu nit ñi ci bëtt nit ñi dik leen ko ci mbooloo mi ndaa loo xamaan na ñoom yesa doon danañu seede ne Ibrahima mii moo def bi le ba mu teewee ci seen kanam xaala ñu ne ko anta ndax yow fanta dem ko xaasaale bi alihat naa ci suñu yàlla yaa Ibrahima xaala mu ne balli fi nekk fanaa loo def na ko kabirum aji mage seen xaasa ji xërëm gu mag gi le ñeente bàyyi ñeente ko fi romb di jaamu ci xërëm yu ndaw yi loolu la mënta muñ moo tax mu daan demaat ak xërëm yu ndaw yi yëpp fasalowam laaj leen ko laaj leen xërëm yi ku leen ku leen ku leen demaate suñ kaanoon dem nekk na yente ko de wax dañ leen wax farajo ñoo ñoom ñu dellu ila an fa seen jëm ci seen bopp ñoom ñëpp ñu dellu xam ne mbir mi duwul luy wax duwul lu mën a waxal boppam mu déglu déglu ko tontu wuñ ko waxaala ñu mu wax ñoomu neen innakum naka yéen antum yéen asaalimuun yi de way tooñ de yéen def lu duwul nii de këram du wax de bi Ibrahima li wax dëgg la de su mu nekk topp ñu jot alaana woo seen ci seen bopp ñoom ñëpp ñu sëgg mel ni kurus ñu ne ko ñu ne ko Ibrahima lakkat na leen ba xam nga maa haawulaay bi ñu yéen da koona de wax xaaral mu ne leen afataa bu ndax da ngeen jaamu min doon laa borom bi maa loo xam ne laa ngeen fookum ak ci li nga xam ne tam boobu xeloona xanaa yéen du xelu te leen bi nii mu demee deyaale waxtaan ñëw leen nan lañ koy def dañ koy sàkkal pexeem ban pexeem moo ci gën bu mujj a xalaat ni daal mbugal mi nga xam ne mii nii daal mooy mën a mosa moom mooy lakk ko rek mu jeex sàkk xaala ñu ne xar nga ko lakk leen Ibrahima wan suroo farle leen dimbale leen alihatakum seen xerem yi farle leen seen xerem yi dimbale leen la leen alihatakum seen xerem in ko na nekk ngeen dem nekk ngeen soye leen di woy def nii daal ne lañ demee da dajale mat def ko muy ak jaamu yàlla gu rëy wala boog ñu def ko muy jaamu xelam gu rëy kenn ku ne yaa ngi indi ñaata tey mat nga war a indi moo indi rek sew na da waroon indi mu ko gën rëy ba da gis ak ku feebar koo xam ne ki ne dafay bàttale ne mu fi bàyyee ko suma alal lañ ci jël nangam jëndee ko matt yóbbu ko ca matt mi dajale pour lakeetu Ibrahima borom alal yi dañu def seen alal borom man-man yi dañu def seen seen man-man nguur yeeg baat looy ñoom ñëpp seq seq paxan ma yàlla ba nga xamee ne nii nii dem nañ ba gërëm ne matt mi doy na pour lakk Ibrahima ñooy jaaxal nag léegi mooy fañ bëgg Ibrahima lakkee ci digg safara sax ak fañ mën a taxaw sànni Ibrahima ndax foofu buñ fa sànnee Ibrahima danaa ngi ci dëkk safara sàmm déet loolu moo leen jaaxal loolu moo leen jaaxal ba Iblis feeñu leen benn bis jàngal leen lu ñuy wax mbëkk lu ko jiitu ñoom xamuñu ko woon mu jàngal leen façon mbëkk boo xam ne bii nii bu rëy laay doon boo xam ne bii nii buñ ko defaree nañ ko war a defaree dana àttan nit te dana ko mën a petaat fu sori foo xam ne dana àgg safara wa noonu daal ci lañ jaaree ba mën a taxaw fu muy muccee ñoom mën a sànni Ibrahima mu dem te fu muy lakkee sànni nañ ko itam dañ ko sànnee ñun yàlla kon naa ñu ne ko yaa naaru yow safara nag tur ga nga de tey nii nañ la liggéeyloo mooy ku ni nekkal ba doon di aju sedd wasalaaman na nga nekk de jàmm de mucc ala Ibrahima ci Ibrahima ko yéexoon a wasalaaman boobu rek ba watul mu sedd sedd boo xam ne bi ne buy lor Ibrahima la yàlla ne ko safara si seddal safara si musalal Ibrahima foofu la Ibrahima muccee gannaaw kéemaan yoo xam ne yéen ñu doy waar la war na jey musal nañ ko waloot ak loot doomu doomu bàyyi taxam la voilà doo namm nañ fii ci moom kay doon pexe pexe lañ ko nammaloon pexe ma sax xanaa dafa amul njëriñ waaye def nañ ko sànni nañ ko mbokk ga ba mu dem ba ca sawara wa yërmande yàlla jiitu foofu fekk ko fa jële jëlee ko fa te ñaar naa am ñu def leen al axsari na ñu de way suuf sa yëpp nag moom moo yontu yàlla loot ñu ko nekkoon doon jaamu yàlla ak seeni njaboot ak njabootu Ibrahima kon wala jëy naa mosoon nañ ko walloot elal a di jëm ci suuf àll ci suuf si nga xam ne baarak naa barke nañ si waaju moom li naa la bi ne gis mooy suuf si saam yàlla mosal ko nag sant ko ne ko yaag loolu mi xam ne sa doomu bàyyi tax la taxaleen ngeen génne ci dem seeti ca suuf si nga xam ne suuf su barke la mu nekk saam ngeen jaamoo ji sa yàlla gannaaw ko waxam naa may nañu loo ñaar ko Isxaaqa may nañ ko itam Yaxooba comme ni ñu ko waxee woon démb rek Isaaxa mooy doom bi ñu ko mayal boppam Yaxooba sëtam la naafilatan def nañ ko muy ndollat dagg naa ko may nañ ko itam Ismaayila wa kullan képp ci Ibrahima ak Lóot ak Isaaxa ak Yaxooba jaxal naa def nañu leen saalihiin ñu di wahiwu wa jaxal naa hum def nañu leen ay matan ñuy ay kilifa ñaa doona dañuy jubee bi am naa ci suñu ndigal waaw xëy naa wooyu nañ ilee jëm ci ñoom fiilal xayraat ak jëf yi jàngal nañu leen lu baax ak na lañ koy defee way xaama salaati ak taxawee jàngal nañu leen ko way ita ak joxe asaka jàngal nañu leen ko wa kaanoo nekkoon nañ ñoom ñooñule xanaa bi dina de way jaamu lu na ñaan ñun yàlla Ibrahima kasaan bi foofu la mbokkam mi nga nii nag moom laa ko booleen musal ko ne ko ànd leen dem saam bañ demee bañ sancee dëkk bi Ibrahima nekk ak dëkk bi ñu nekk nee nañ mu ngi tollu woon ak ndoxam benn bis waloo tan naa ma dikkee nañ ko hukman xam xattee mu xel ak xam-xam wala jay naa mosal nañ ko minal xaw yi ci dëkk ba nga xam ne kaana nekkoon na tax mënul di def alxabaayis ay jëf yu ñaaw te ñoom kaanoo nekkoon nañu xaw ma sax yéen bi nit ñi bon fasixi na di woy kàccoor waar xal naa tàbbal nañ loot ñu raxmat naa ci suñu yërmande innahu moom loot minu saaliina bokk na ci woy xiir yi wanaan fàttalikul nooxan jàngoon nañ ko léem barki léem bu ko ñu ne waskul fil kitaabi waskul fil kitaabi ñu ne fil kitaabi yi mu ngi yem ci sootu Mariama soo ko rombee du loo gisati léegi nag waskur sax moom moo dem waskur noohan waskur fil kitaabi noohan wa noohan fàttalikul noo def naa daa ba mu wooyee min qablu ci njëkk wasajam naa ñu ñu doo ñeel ko kon na jey naa woo ñu mosal ko wa aloo ak ñu ñoom mel kat bi ci la wax ne rabbi laa tasoon ne alal laa demel kéef ne ñu ko ko mosal njabootam kon na sor naa dimbali nañ ko minal xam ne nit xale na nga xam ne kasta ba wét nañ bàyyaat naa ci suñu kawteef te moom naka ñoom kaanoon nekkoon nañ xaw ma in di aw ñu bon faax rax naa moom labal nañu leen añ ma yéen a boole seen léegi foofu la woon de yonte wax na waa def naa de man xablu fastajabnaa lahu ونوحا فاتلقوا النوح gis naa de ba mu wooyee rab min ba mu wooyee boromam min xam la ca njëkk fasajam naa ñu nangu ñaan ndawoo ñaal ko fa najjee naaw ñu mosal ko waaloo ak ñu ñoom meneen kar bi ci njàqare xana seeni njàqare badaa ji màgg wa nasar naaw dimbale nañ ko meneen xam ne xam ne kas ba wét nañ daayaat naa ci suñu kawteef enoom naka ñoom nitam ñooñale kaanoo nekkoon nañ xaw ma saw en de nit ñu bon waa xam xam naa moom labal nañ leen ñoom nit ñu bon ñooñu la ay maye na boole seen nooyeen ak ñi ko jotoon a tuub ñu jotoon tuub ci ci moom ñooñu lañ ko desal xesa biñ ciy teg mooy xesa bi wa daa wooda fàttalekul daa wooda waxoon ne alxuraan bu waxee benn yoon ci sootu mariama waskur fil kitaabi fil kitaabi ji foofu la koy bàyyee waaye fii moom waskur ji sax moo dikkut waskur daawooda wa daawooda fàttalekul daawooda waaw gi la doyloo wa suleymaan ak suleymaan daawooda mooy bàyyi suleymaan mooy doom ji fàttaleku leen is yankumaane ba ñuy xatt ñoom ñaar fil xasti ca mbay ma is na fasat ba wotalee fii ca tool ba xanamul xawme jur ak bokk ya kon naa nekkoon na ñun yàlla saahidee di way fekkee li xukumee bi seen xatte fa xam naa ha déggal nañu xatte ba Suleymaan Suleymaan te mooy doom ji waaye daa war a xeebu wut nag kulan képp ci bàyyi ak doom ji atay naa dikkee nañ ko hukkuman xam-xam hukkuman xatte man ak xam-xam yonent yàlla daa war a attekat la woon mu yar mu am doom doom bi ñuy ko wax Suleymaan maam aw nit ñoo xam ne ñu ne seen ak jur dafa dugg ci toolab jàmbur ñu kalaamante ci daawooda te ndikee at leen na ngeen àtte ne na ngeen àtte nga xam ne seen ak jur ci toolab jàmbur ba yàq na toolab jàmbur ba jël leen seen jur gi jox ko borom tool bi borom tool bi moo am jur léegi yéen amatu leen dañ dee ne dañuy bi te noonu lañ leen xàttee romb Suleymaan ci buntu kër gi te yëgoon na leen dañoo kalaame ante mu laaj leen ne leen lu leen bàyyi xàttee mu mu nett lil ko ni ni mu leen àttee mu ne man de su fekkoonte ne maa de àttee du ma àttee nii léegi kàddu ko de bàyyam dégg na ko xooku mu ñëw mu ne ko yow boo doon atte noo de atte mu ne ko man de bu ma doon atte damay wax ne yéen borom jur gi yéen a yàq toolu jàmbur bi tool bi demoon na ba taxaw waaye léegi yàq ngeen ko ba tool ba amatul yaakaar jël leen seen jur gi ngeen jébbal ko borom tool bi koy ratt da jëriñoo di sàmm da jëriñoo yéen ngeen ne fekk féete toolub jàmbur booba ngeen yàq da ko béye da ko jukkat da ko béye da ko jukkat ba mel na meloon ngeen delloo ko toolam te dem jëli seen jur ate ba borom bi tabaaraka wa taala mu ne fa fahamnaahaa déggal nañ ko Suleymaan Suleymaan kullan képp ci ñoom ñaar ne ate naa dikkee nañ ko hukuman xam-xam ak hukuman ate mayen man ak xam-xam nee na ba mujjee ci loxool Suleymaan def bàyyi ci wéyale loola le ñeen ñaari bàyyi bi nga xam ne kenn ki yonent la kenn ki itam boo ndegee yàlla dina ko def yonent ñi nga doom bi gindi bàyyam ni mu ko ni mu ko yombee ci bopp saar bi jàngoon nañu Ibrahima ba mu bëgg gin di baayam ak gisoon nañ nu ko téye woon saar bi jàngal nañu ñaari das yu am solo yoo xam ne wajur wu ne war na koy xam mooy Ibrahima ba mu xamee ba ko yàlla xamalee njub xamal ko diina balaa moo dem da ci kenn ci baayam la ko njëkkee ñi ko tëj ñëpp baayam moo ko ci gën a të Suleymaan bi bàyyam xatte ci kanamam mu wax ca pegg ne su doon man de du ma defee nii ba ko bàyyam yégee da ko xoo mu ñëw ne ko yow bu doon yow noonu defee mais man de bu doon man nii laa di àtte bàyyi ñëw fekk si ko ci ab yonenta ba ko doom ja gañee da ko gaaw a nangu te doxut ab jullit ba ko doom ja gañee nanguwut ko seetal bu baax a baax a baax kan nga ciy toppandoo ci ñoom ñaar ñooñu toppandooral yonent bi bu la doom gañee nangul ko wasaxaar naa tàggal nañu ma daawoon ànd ak daawoon a aji baala doj ñu sa doy na doj yi dañuy sàbbal ànd ak moom wa tayra njànnaaw yi moom itam tàggat nañ ko ñi daawooda dañuy sàbbal ànd ak ànd ak ñoom bokk naa ne nekk bokk naa nekk na ñun yàlla faa ne di mooy def loolu bokk nañu ceet yi nga xam ne mayoon nañ ko daawooda moo ne daawooda bu daan sàbbal mbéy ñi dañuy sàbbal ànd ak moom daawooda bu daan sàbbal njànnaaw yi dañuy sàbbal ànd ak moom waalam naa wa xamal nañu daawooda sanaatal la boosin liggéey ay mbubbi koŋ da ko ñaanee li ñoo xam bëgg te mooy bëgg yooyu ñoo xam ne yii nii ku nekk ca xare moo koy sol ndax bu nga nay man ci moom dara yonent yàlla daawara moo ko njëkk a liggéey moo ko njëkk a liggéey li yoo si na kum ngir na mbubb koŋ yooyu le sangeen leen mit ba si seeni kattan ak seeni xeex yaa ngi jàngal li yuhsinakum kon da ngaa wax ne lëbboo seen musakkar nag góor la bu dee góor nag yuhsinu la ñuy wax wala yow li tuhsinakum ngay jàng kon da naan lëbboo seen mu anas la dañ koy jigéenal kon da nga naan li ngir na dugg koog yooyu sangeel leen min ba ëllëg ci seeni kàttani xare seeni ngànnaay def na njànganu ñetteel de mooy li nu sinakum bu boobaa da naan li nu sinakum ngir ñun yàlla ñu ñoŋeel leen bu ngeen amee mbubb koŋ min baasikum ci seen xeex waaw antum ndax yéen saakiroon woy sant ngeen loolu mën naay sant de mbubb koŋ moo xam ne mii ne boo ko solee ngànnaay du man ci yow dara te yonent yàlla Suleymaan loolu ko yàlla njëkk wan te moom la ko nit ñi jàngee wala suleymaan a tàggatal nañ yonti yàlla suleymaan a reex a ngelaw xaasifatan mu di aji riddi li dee ridd la wax keneen nag dafa wane waxaaxat mu ne ngelaw lu yomb mu xam ne su bëggaan mu riddi day riddi bu bëggaan mu jàppande itam dafay jàppande te jëree mu ngay daw bi am ne ci ndigal suleymaan ngelaw la ko yàlla tàggataloon warukaay ba nga xamante ni ci la daan yéeg mu nit ña moom moo ko xam waaye su ko lalaan ba toog ca moom mbooloo ma ak mbooloo ma lu mu bëri bëri bëri bëri ci suuf la ko ngelaw di jaaree rek naaw ñoom ba yóbbu leen fañ jëm ilal ardi ca ci suuf allati suuf sa nga xam ne barak naa barkeel nañ fi aji moom te mooy suuf si saam kon naa nekkoon nañu aalim ne damay xam bi ko lu feeñ ci lépp laf loo xam ne léegi Suleymaan bëgg na ko wala eh, bëgg na fay dem ba nekkoon na loo xam ne nii yéemu na yéemu na lool te lu dañ di yéemu mukk ak yonent yàlla tàggatal ko ngelaw fu mu bëgg a dem rek dem fa lu mbooloo mu bari bari dana leen yóbbaale yéemu woon na lool daanaka xel mënu ko woon a jàpp waaye ñun jamono ñoom wax dëgg war nañ cee mën a am luñ ko gëmee ndax boo seetloo avion bi nga xam ne bii nii moo lay yóbbu ak bagage bi nga xam ne bii nii moom lay yóbbu ak mboolem bi mooy yóbbu niñ bëree te demewul daraj ko lu may rek ci kaw ngelaw lay deme si ba muy àggee fa mu jëm te waa a waa waa sanrun ngelaw li bu xëyaan doxam weer lay doon ku kontaan doxam weer lay doon waaye loolu moom itam ba tey warukaay yu bees yii seen gaawaay ngeen xamul nan la mel rek loo xam ne dëkk ko xamaguñ ko melal rek lañ ci mën a am waaye daanaka rek waruwaay yu bees yi wane na eh, may gi nga xam ne génne bu yàgg la ko yonti yàlla Suleymaan amoon ñu toog ba léegi ne ñun ñi ko door a am des na bii bii moom ba léegi moom yonent yàlla Suleymaan jag jagle gam ci amoon ba tey nit ñi amaguñ ko ci mooy lii wa mina sayaatiin tàggatal nañ ko ci saytaane yi man ñoo xam ne ñii ne yaqoosuuna dañoo xuus biir géej loo ñi al ko tàggatal nañ ko ay saytaane yoo xam ne yéen ci biir géej géej gi dañoo xuus lu mu soxla lu mu sori sori gannaaw ci biir géej la nekk rek mën nañoo xuus ba indil ko ko su ne am nañ tukkeekaay yoo xam ne yéen dañ koy misaalee tukkeekaay yu yonent yàlla Suleymaan ya waaye ba tey ba tey de des na loolu ay mbindeef yoo xam ne yéen yàlla koo tàggatal duñ doom aadama mu leen yónni ci biir béej gi ñuy ci xuus lu mu soxla ak lu mu sori sori bu dee wurus bu dee xaalis ak bu dee lu mu mënti doon mën nañ koo indil waaye amaloona danañu def amalan jëf bu imaana danañu def ñeel ko amalan jëf doona saa rek judut yooyu dañ ko defal yeneen yeneen yeneen liggéey yu bëri yoo xam ne yi ni ëpp na loolu wax na ko ci beneen saar mu yax ma loolu loo maa yasa min mahariba dañ ko daan liggéeyal ay jàkk yu yéemu yéemu ak i tabax yu yéemu yéemu wa jifaan ak i bagaan yoo xam ne yu yéemu yéemu la wa xudura raasiyaatin ak cin yoo xam ne yooyu kenn gisagul ci ñu ko gën a rëy cin yooyu moom itam duñ toogee ba jamono yi nga xam ne hôtel boo xam ne bii ne kenn xamul lu muy toogal ci ay nit hôtel boobu ne buñ la wanoon toggukaayam ba bu boobaa ngay xam lan mooy xudura raasiyaatin cin loo xam ne dafay daju ci place kenn du ko toxal jënd yi dañ ko daan liggéeyal yonti yàlla Suleymaan ma teg ci yonent bi ni may ak yonent yàlla Suleymaan ngi yéemoo woon ak nam ci santee yàlla nattu bi yonent yàlla Ayooba xawoon naay tollu noonu ak muñam ko itam xawoon naay tolloo ak sant ak yonent yàlla Suleymaan ga moo tax bi ñu bàyyee ci borom may bu rëy ji muy Suleymaan ñu teg ci borom natt bu rëy bi muy Ayooba wa ayooba fàttalekul ayooba isnaada ba mu waxee rabboo boromam ne ko ani man de masaniye laal na ma adduru lor waana te yow arxamu raahimiin yaay ki nga xam ne kii nii moo gën a yërëm way yërëm yi yonent yàlla ayooba ab yonent la woon xam ne bii nii yàlla mayoon na ko njaboot yàlla mayoon na ko jur yàlla mayoon na ko alal yàlla maye woon na ko itam wér gi yaram ñu toog benn jamono natt yi yéeg ko njaboot gi dafaatu benn par benn ba daanaka kenn desatu fa jur ga jur ga de benn par benn ba mujj jeex alal ja itam de sànku benn par benn ba mujj jeex mujj gi nag mu tekki itam amee yaram wu jagadi soo demee ba xam ne àgg na foo xam ne fii nii tawatal borom bi moo gën noppi booba lay doon tawatal borom bi waaye fekk na mu muñ ba tey nii la ko waxee itam ani man kat masaniye jot na ma adduru lor man de yàlla lor yéeg na ma waa anta yow arhamu raahimiin yaay gën a yërëm way yërëm yi fa sajab naa ñu nangu loo ñaal ko fa kasab naa ñu xuññee ma la nga xam ne bi nekk na ci moom min doo dañ cig lor am ndox lañ ko wan ne ko dañ ko wan benn place ne ko dëgg sa tànk boo ko dëggee rek ndox dana génn ba ndox ma génnee ñu ne ko sangu ca ñun yàlla ba mu sangoo ci ndox ma rek boobu la wét waa tey naa dikkeel nañ ko ëllëgoo ñu ñoom lu toll ne la amoon ci njaboot jox nañ ko ko doolil ko ca wa mislahum ak ñu mel ni ñoom la amoon ci alal delloosil nañ ko ko la amoon ci jur delloosil nañ ko ko maamam ànd ak ñu njëkk ñi itam lémbu toll ni ba amoon bu njëkk ci alal ak ci jur ak ci njaboot amaan na ko yàlla yokkal ko ci itam lu toll ni ñoom kon lépp loo xam ne ni ñàkkoon na ko rek yàlla delloosi na ko yokkal na ko ci itam lam doon tawat ci yaram wa itam yàlla saafaraal na ko def naa ko nag rahmatan yërmande min naa ci mu tukkee fi ñun wa sikraa def nañ ko muy fàttali itam linaa bi dina ñaar woy jaamu jaamukati yàlla yi ñu xam ne bépp jaamukati yàlla boo xam ne bii nii rek am nga loola jot loo xam ne lu tiis la boo ko tawatalee borom bi tabaraka wa taala ci yar ak teggin ak yaakaar ak waxee ko yàlla na ko war a waxee yàlla dana la jox xet li xesakat yi nag ci xisaab yontu yàlla eh, ay yóbba dañ ci dem baag foo xam ne fii nii eh, ñu bëri ci firikat yi nee nañu xumbal waxtaan la rek waaye daal lii ñu wax nii daal ñu ci bëri bëri bëri loolu lañ doonoo ndaxte ak yonent yàlla da koy yónni pour muy jaxasoo nit ñi su mënatu la jaxasoo nit ñi rek ak yonentam du dox kon nag ab yonente yàlla da ko teg feebar boo xam ne bii nii su ko tëddee du jaxasoog nit ñi yàlla du tënk ay tànkam ba du mën a dem ci nit ñi yàlla du wax ba du mën a wax na daal waaye niñ koy waxee noonu wax dëgg lu toll noonu feebar lu toll noonu yàlla eh, jobbale na ko yonente yi du leen di xañ làmmeñ ba duñ mën a wax ak nit ñi du leen di xañ tànk ba duñ mën a jaxasoo nit ñi du leen di xañ xalal ba duñ mën a dimbali nit ñi du leen di xañ taar ba ku leen gis doo leen bëgg wa Ismaayila fàttalikul Ismaayila waaye Idrissa ak Idrissa ñaar ñi njëkk ñaar ñi boole tudd nii nag ku njëkk ki moom ak ku njëkk ku njëkk ki Ismaayila moom ñaar képp ñoo dox moom Ibrahima moo ko jur Idrissa nag moom ñaar képp ñoo dox digganteem ak Adama Idrissa moom doomi Adama moo jur baayam kooku jur Idrissa moom ci yonent yu njëkk yi la bokk wasalkifli ak yonent bi ñuy wax salkifli salkifli doon nañ fi waxtaanee Moussa ak Haroona Moussa ak Haroona gannaaw bu ñu fi bàyyee amoon na beneen yonent boo xam ne bii nii moo yoroon seen mbooloo mi ñu daan ko wax yasaxo yasaxo nag lañ wax ne ba muy bëgg a la dajale woon ba néew Israël ne dama bëgg a xut seen biir waaye nag dama koy tànn ni ma koy tànnee mooy dafa am ay sart yu ma leen ay jox bu ma amee ci seen biir ku ko mën a warlu moom laa de def sama kuutal te ko defoon yeesa xool lañ koy wax kookale day doon koo xam ne dafay nangoo tokkoo koor dafay nangoo dundal guddi ci jaamu yàlla te du doon ku bëri mer ba moo la ma dayee ñoom ñëpp ñuy wax xoob xoob xoob dayaa loolu la tuubi loolu mooy tuubi dëgg-dëgg kooku moo wax ne moom loolu mën na ko yasama laaj ko mu ne mën na ko mu ne ko yow laay def sa kuut suma kuutal ban fay bayeku ëllëg loolu moo tax ñu ko tuddee sal kif di borom warlu ba lii dàkkental la waaye am na tuur mu ngi bokkoon ci yonentaay banu israel yi ñett yi mu toftale ak nubuwa moo leen boole waaye ay am na ay mbir yu xaajale ndax Idrisa moom wax naa ne setab aadama la bu ko jege ndax ñaari baay ñoo dox diggante moom aadama Ismaayila mii moom doomu Ibrahima la sadki fii moom ci bënnu Israël la bokk waaye ñoom ñëpp li ma wax nii boole na leen mu ne kullum képp ci ñuy mën a saabi dina bokk ci bokk nañ ci way muy way muy ñi li ca jàngee ñun moo di indi sa ca soti aadama ya indi jël Ismaayila mu doomu Ibrahima jël salke fi bokkoon ci bënnu Israël ñoom ñett ñu tofsale leen dafa am benn jikko bu leen boole muy muñ jikko bu leen boole noonu nag moom la jàngal ñun ndax ñu am ut ci cër kon loolu képp ci ñi minosaar yi bokk nañ ci mooy muñ yi waar xam naa am tàbbal nañu leen fi rahmat naa ci suñu yërmande liñ leen tegee moo de muñ leen yàlla cërale mooy tàbbi ci yërmande yàlla ndeke muñ daay tàbbal nit ci yërmande yàlla inna eh, moom naka ñoom sax de mina saalihin ne bokk nañ ci woyu xiiw yi ay ñu xiiwe lañu woon wasannoo ne fatlekul borom borom jën wa kii moom indi wut tur wi dàkkental wi la indi mooy yonente ba nga xam ne benn eh, jën wa da ko wannoon sooratul safaati moo koy leeral dëgg-dëgg yoonu so lañ koy wax Yuusa borom bi tabaraka wa taala da koy yónne woon ci aw xeet mu dem da leen waar da leen waar da leen waar ba tàyyi waa xeet wa nangu ñoo gëm mu bayee ko ko nag ci lu dul dëggalal yàlla bayee ko ko nag nan la dafa gis ne wax na ba tàyyi te déggaluñ ko mu gedd leen dem wala daf leen teg koo woon ne mbugal dana ñëw waxtu sàngam lay ñëw waxtu wa jot mbugal ma dikkut muur sa muuru sa toogati ci seen biir wala daf leen teg ko woon ne mbugal dana ñëw balaa mbugal maa ñëw ñu for tuub alkande amut loola nekk kert ci seen diggante moom ñoom mu gàddaay wa ci leen fa ak lu mën a am daal borom bi tabaraka naa taala santoon na ko mu woote doon na woote amagul ndam gedd na nit ñi dem da ko ca fekk nag ba mu génnee di tukki dafa dugg ci benn gaal ba mu duggee ci gaal ga gaal gi dem ba ci dëgg géej di yëngu-yëngu boo xam ne bu doy waar la borom gaal gi wax ne gaal gi bu mos a def nii rek dafa am ku ci nekk koo xam ne kii ni nekk lu ci ndigal yéen yéen waa gaal gi na ngeen seetante yéen ñii am na ko ci jóg te kenn nanguwut cee wax ne moom la ñu ne léegi dañ koy tegoo bant dañ ko tegoo bant bant ba dal ci kaw yoonu sa moom mi nga xam ne dafa gàddaay nitam ñett yàlla mayut ko ndigal ñu ne nuñ koy def ñu ne dañ koy génne dañ koy dañ koy sànni ci ndox mi kenn nit képp ak waa gaal gi yëpp sànni du mën sa mukk loolu lañ ko rek sànni ko ci ndox mi dañ ko sànnee ci ndox mi yàlla mi ko yónni woon hebal benn jën jën woo wann ko moom la ñuy nettali fii wasan borom jën wa indi wuñ turu de turu mooy mais wasanoo ni borom jën wa xisaaba ba mu demee mu xaade ban de aji mer wala mu de aji mer lante ak nitam ña wasanna mu jot fa ànd lan maqadara duñu xatal ale ci moom naqadara duñu xatal defi rek xatal du fii rek la dikk ci alxuraan alxuraan wax na ne allah yestatu dëkk li ma yesaaw wa yaqadiru dana mu xatal alxuraan wax ne waman xudira ko xatalees naa léegi moom rus ko wasagam mu ne Abdullah ibn Abbas dafa mos a dem ci Maawiya Maawiya ne ko biig ne lewuma ndax benn aaya alxuraan aaya jooju jan la mu ji ne ko wasa noonu isaaba muxaadiban fasan na ala naqdira alayhi maanaam a dikkee ko ne ko na mu ko déggee moom maawiye mooy façon na mu jorto annaka luñ doon lan naqadee duñu duñu duñu duñu manal duñu man duñu manal àllee ci moom moom noonu la ko maanaam yi dikkalee ne xadara manal la lay firi dafa yonente bi dafa yaakaar ne ñun duñ ko manal maawiye ne ko loolu nag ab yonente nan lay sikkee ci kattanal yàlla loolu moo ma jaaxal Abdoulaye ibn Abbas ne ko baat bi dalaa nax baat bi dafay firi man da firi xat fii nag xat la fi firi firiwul façon ne mu jortu ànd ak luy mbir la naqadara duñu man duñu jekku àllee ci moom firiwul loolu mu ngay firi façon ne mu jortu ànd ak luy mbir la naqadara duñu xatal àllee ci moom duñu xatal ci moom àddinaam maa ngi ne ko wax nga dëgg loolu jaaxaloon na ma xanaa daa moo de bisulmaan ci lëndëm ya ñetti lëndëm la géej mu nekk lëndëm na guddi gi lëndëm na biitu jën wi lëndëm na an na lii la luy mbir laa ilaa di benn buur bu jaamu ilaa anta ndara yow yàlla subhanaka tuddee subhanaka tudd naa sa inni man kuntu nekk naa minu saalimiin di bokk ci way tooñ yi booba la waxee borom bi tabaaraka wa taala fekk yàlla ko làq ci biir a jën bi mu dem ba tefes la gàq ko ci benn toolu naaje mu nekk ci kaw ron xobi naaj yooyu le ba yaram wi dikkaat mu door fu bayee ko nekk nit boo ko saare nga naka nii kat nun ci la ñuy musalee almomini ne mooy gëm yi am nañ ci cër ñu bàyyi ko xel nee na yontu yàlla woon xooyee borom bi tabaraka wa taala te amoon ñetti njàqare yoo xam ne yéen yu doy wàlla te mu ngi ko tax mu ko wooyee ci biir géej noona ma musalee woon ko njàqare yooye de xam leen ne yéen jullit yi noonu laa noonu laa leen mën a musalee ab jullit bu ne war naa xam ne am na cër ci àtt bi Yonent bi sallallahu taala wa sallam wax na ba tey mu ne daxawatu axee si noonu ñaan nga yonent yàlla sama mbokk ma ñaanoon su may laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina saalimiina nee na képp ku nekk ci njàqare soo ko bërilee yàlla dana la génne ci njàqare ga laa ilaha illa anta inni kuntu min asalimin nett woon naa ko fi daaw eh, imaamul xaramayni borom xam-xam la ba mooy sëriñ bi limaamu xasaali baayam di fuutu baayam laaj bi ko njëkk njëkk njëkkal laaj mooy fan la yàlla nekk kee la njëkk a toog dëxootu bàyyam ci jàngum ñu ne ko fan la yàlla nekk maa leen maa ngi amee gan koo xam ne génne yi mu nga amee bato fukki junni fukki junne yi mooy leen li ma leen di laaj moo de ne yont yàlla yi yoonu sa ba may xoo borom bi tabaraka wa taala te jàkkande ak moom laa ilaha illa anta ndare yow te anta kuñ jàkkande da koy wax booba yoonu sa fan la nekkoon ñu ne ko booba mu ngi nekk ci biir géej gi ne leen diggante yàlla Muusa kera ba ko yàllaay wax ne ko inniya anallahu man maa de yàlla booba fan la Muusa nekkoon ñu ne ko booba mu ngi ci jabalu Tuuru Sina mu ne Tuuru fan la nekk ñu ne ci kaw suuf mu ne ki gën ci bindee bi ba ko yàlla soxlaa fan la ko xoo mu ne ko mu ngi ko xoo ca kaw aras mooy ba mu soxlaa yonent yàlla Muhammad mu ko xoo ci aras ba yónn sa de wax ak moom ci géej gi la doon wax ak moom ba Moussa de wax ak moom ci kaw suuf si la doon wax ak moom yàlla fu ngeen dem mu nga fa ndax doomu dañ ko njëkk njëkk a tontu ba mu nekkee xalifa baayam imaamul xaramayni aboo Muhammad Juwayni mooy sëriñu limaam Xasaali ba Sakariya Sakariya is naa de ba mu wooyee rabbahu boromam moom lañ ubbee woon sootu Mariam mu ne rabbi sama borom laa taxaw ne yàlla ban ma bàyyi xodan ba aji weet man kenn rek man sama soxna amul génn doom déedéet yàlla yàlla dakk yàlla moom lañ njaboot waante yow xayrul waasini yaa di gën ci woy doone yi fas jot naa ñu nangu loo ñeel ko woo xam naa may nañu loo ñeel ko yaxyaa waaw sax naa yéene na lañ la woo ñaar ko soog joo soxnaam foo ko doone soxna si dana mën a amati doom waaye may nañ ko wet gi yaram may ko kàttan lu mën a amee doom ba am na doom doom bi ñu ko wax Yaxya Yaxya itam jox nañu ko jox nañ ko xam-xam ci ngune ñi ma wax nii de inna moom naka ñoom kaanoon nekkoon nañ ñu saari woon di njëkkalante fil xayraati ci xiiw yi ñoom yonent yi dañ daan jiitu ante ci xiiw waaye daxoon naa dañu daan ñaan raxaban ci xemam waraxaban ak ci bu ñu daan ñaan bu ñu amee ñaan fekk dañu am xememteef ci ñun dañuy ñaan fekk dañu am lu ñuy ragal ci ñun jàngal nañu foofu ne xememteef danay waral nga xeet ci ñaan ragal danay waral nga xeet ci ñaan dañ ñaan boo xememee ci yàlla dara del ñaan boo ragalee ci yàlla dara wakaanoon nekkoon nañ xaasee na de la naa ñaan ñu ñoom ñi doon ma wax muy yónnente yi jëf ju yiwu dañ ko daan njëkkalante ñaan dañ ko daan bëril dañ ko daan def bu ñu xememee dañ ko daan def bu ñu ragalee te dañ daan tuur toolu fa yàlla léegi nag waxoon naa ne fukki yonent lay indi ak eh, juróom benn eh, tëjee ko benn soxna su baax wala dee fàttali ko soxna sa nga xam ne ansanat sangeel na farji a kanamam fa nafax naa ñu wal fi aji moom mi ruuxi naa ci suñu ruuxu te mooy mariama wajaxal def nañu ko wam na ak doomam ayatan ñu kaawtee dina alami ni ñee at bindee fi soxna soo fàttaliku ko moom itam boo de fàttaliku ñu baax ñooñu le boole ko ci afaan raw na leen bu yàgg ba mu tuddee ay yoon ay góor ñu baax balaa mooy tëj indi na jigéen ju baax ñu toog ba léegi nag ñu naan fu ñu tuddati góor nañ fa tudd jigéen mu yàgg la leen aw alxuraan jiitu na leen bu yàgg yàgg yàgg jiitu na leen ba mu tuddee ay góor ñu baax balaa moo tëj waxam indi na jigéen ju baax motlee ko wajaxal naa def nañ ko xam na ak doom je te insa ay te mooy kawteef li naa ni ñi ak bindee si naka lee ummatukum mooy seen xeet wi yéen waa islam ummatan xeet la waaxidatun buy benn wa ana man rabbukum mooy seen borom maa bu doonee na ngeen ma jaamu wa taxata tàqale ko nañ amruhum seen mbir baynahum seen diggante xeetu benn la waaye ñoom neen xaajale nañ ko ñi gëm lii ñaa gëm la ñi nekk ci lii ñaa nekk ci laa waaye ku loon képp ñëw aajo woon we wu ñee ko la ñu ilay naa jëm ci ñun fa man yaamal ku def na mene saalihaati jëf yu baax woote moom moominun mu di aji gëm falaa kufraana déet ak wet li fay ñi alxuraan du foofu rek la leen jiitoo jiitoo da leen kere may wax ne inal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal xaanitina wal xaanitaati fu mu tudd góor tudd tudd jigéen ci peggam inal muslimina wal muslimaati wal xaanitina wal xaanitaati topp na ko jullit yu góor ya jullit yu jigéen ya way gëmi góor ya way gëmi jigéen ya way way koor way koori góor yee way koori jigéen ña junniy at ak lu dofal da ko defoon fi toog ba léegi nag ñu naan muy tudd di góor nañ tudd jigéen alxuraan jiitu na leen amay yaamal ko def na melo saale at ji way yooyu woote moom moom aju gëm la balaa ko fa dee teg weddindi say ñii xal jëfam joojale waaye naa ñoon kaatiboon way bindal nañ ko tiya way tiyaaboo way bindal nañ tiyaaboo la woo ñeel ko dañ ko fi bindal tiyaaboo wa xaraamun aji terexu la wa xaraamun aji terexu la mun da am ala xaryatin ci dëkk boo xam ne bii nii ahlak naaha nañ koy xalak ànd moom naka ñoom layal joona dootuñu dëppati de tuub dëkk boo xam ne bi ne topp nañ jëf ju ñaaw baalkande war lañ cay fekk baalkande googu yàlla dogal ko ba fasoo ko ñuy dëppati dëttuwub dootuñ ko mënati wa haraamun aji tereexu la ala xaritin ab dëkk boo xam ne bii nii xalak naaxaa nañ koo alak ndax dañoo tooñ benn ci bàkkaar loo xam ne alkande képp moo ci moo ci war a toppati àndoon ah naka ñoom laay dootuñu defati ne dañoo tuub duñ ko man dogal yàlla dana xam dana dana dal seen kaw. xataa isa futihat jooju wa jooju waxum ñoom ñan si loona dañu gaaw min min kulli hadabin ci bépp tund noonu lañuy ñuy nekkee rek def wutee ci seen biir kuréel yooyu le ba mujjëg jamono dikk su ko defee yaajooj ak maajooj feeñ te bu dikkee mujjëg jamono la ñuy feeñ su ko defee àdduna jeex alkande dikkal leen waxatara ba jege na alwana du alxaqu bay dëgg laysa ay yëguma lu mooy saaxibatun aju bokkeeku la absaaru la seen a gis ñi nga xam ne kafara wét nañ yaawee la naa ñu ngi naan woo nañu suñu toroxte ak ku naa nekkoon nañu fi xam ne ci càggan mi naa sa ci lii balli fi nekk ku naa nekk nañu faalimee di way tooñ yaa jooja ak maa benn kuréel la boo xam ne bi ni xeetu doomu aadama la jàngoon nañ ko ci sootu kanfi ne soo xamee ne ba muy dox ba àgg ci réew ma nga xam ne ñoo digaloo ak ñoom réew ma dañuy waxoon na dañu sàkkoonte ñoom ne nañ leen defal benn barrage boo xam ne bii nii mooy dox seen diggante ñoom ndax dañ di ay nit ñoo xam ne ñooñu dañoo yàq te jege nañu te mucc ñoom yombut loolu loolu moo taxoon ñu jàng ci sootul euh, kanaf yi li tax ñu ne ko jàng fii nag moo ne dañoo xam ne ne seen ak feeñ ci màndargaay mujj jamono la am nañ nag wuutee ba xam ndax ñoom feeñ nañ ba ne pare dañuy wax ne mooy xeetu ñoo xam maxool nga xam ne ñoo ñoo feeñoon ci jamono bi gàddaay yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam tolloo ci juróom ñeenti téeméeri at te ñu mosoon dal ci kaw Baxdaad ku ñoo xoolaa ko jiite woon mbooloo moomale te ñoo tojoon Baxdaad tojoon boo xam ne bii nii eh, kenn mësul dégg toj bu mel ni boobale bu ñaaw woon bu jéggi dayoo la woon bu siiw woon te def ko nag ci jamono bu gàtt gàtt gàtt gàtt te ñu defee ko itam ci doole joo xam ne jëni ji rëy la te bari woon te mbooloo ma reyoon lool am na ñoo xam ne ñooñu la ñoo doon yaa jooja wama jooja su fekkente ne feeñ nañ ba pare am na ñoo xam ne ba tey itam mbooloo moo xam ne mii nii eh, feeñaguñ li def ci heure bëri na. Hmm? am na ñoo xam ne ñooñu la waaye alaa kulli haal mu ngi bokk ci màndarga yi nga xam ne nii ci. màndargaay mujjug jamono la bokk te la ñuy defee occasion nag ba leeral ay màndarga yoo xam ne yi ne fukki màndarga la yoo xam ne waxoon nañ ne màndargaay mujjug jamono la bokk nañ nag ci yi nee nañu bokk na ci màndargaay mujjug jamono ñañ waxoon ne mooy màndargaay mujjug jamono nit ñi toog ba ci kanam dootuñ ko waxtaanee ci ma doon nañ ko waxtaane fii waaye xam ne dañoo dem ba daanaka sax dañ koy wéeti léegi gëmatuñu ko yaajooye ak maajooye ci la bokk dañuy addis bi da wax ne bis bi balaa mooy taxaw ñu ne ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa lañ ko jëlee dana am fukki yëf yoo xam ne yéen da ngeen gisal seen bopp benn mooy feeñ ak yaajooja ak maajooja am na ñoo wax ci borom xam-xam ne moo def xeer woowu mosoon dal ci kaw Baxdaad boobu gàddaay yoon mu ngi toll ci juróom ñeenti téeméeri at benn bi mooy soxat soo xam ne si nii su jéggi dayoo lay doon loolu moom itam téere yi waxoon nañu ko loolu nañ dana ñëw mu jël jamono wutal nañ ko ay melokaan waaye ñi nga xam ne ci jamono ji ñu ngay déglu xabaar yi ak da ko sàmm xam nañ ne jamono ji borom xam-xam yi soxat si nga xam ne si ni moo tasaaroo ci jaww ji doy na leen xalaat ndax sa oto bi bu muy départ su fekkee soxat lu ñuy natt la lu toll ni kaasab soxat ba mu génnee woon noona ak oto bi nga dendatoon ba mu génnee woon noona ak oto oto ba ko njëkkoonu départ la mu génne woon noona ci dëkk bi nga nekk ak ci beneen dëkk yaa ko gisatut waaye jeexut ba léegi mu ngi ci jaww ji te bon nag tege tegeewutut waaye ba léegi mu ci jaww ji mu nekk ci jaww joo xam ne jigéen nag yow fi ngay dundee soo ko xamee ak suñu tiim dafa fees dell ak galaas glace googu bu yàlla naree mu taw moom lay jax bu ko jaxee mu sotteeku muy am ndox te tàngoor la koy jaxee te saxal soosu dafay tàngal jaww ji boo demee ci pegg réew ma ci pegg ndox ma ñu ñuy wax Eskimo suñu dëkk yooyu ay glace ñoo fa nekk yoo xam ne yéen moo leen xaar géej gi ba géej gi du agsi ci nit ñi te tàngoor da koy tàngoor da koy da koy róyal te saxat lépp tàngoor la jaww ji saxat suñ fees dell kenn xamul nan la yem kenn xamul lu muy jur ëllëg balaa tey fekkoon na yéen bi waxoon ne saxat dana ñëw mujj ak jamono soo xam ne si nii ci màndargaay dikku saa la bokk mu toog ba léegi nag mu am mu jaaxal borom xam-xam yi noonu la nasiru dajaal dana ñëw mujj ak jamono nee nañu bokk na ci màndargaam dëkk ak masiwu dajjaal ñu dem ba dootuñ ko waxtaanee ci mu ne ba xam ne kenn dootu ko waxtaanee ci màndarga la ci ne jamonoom jékki na léegi nag rawat na nag bu demee ba ñu ne gëmatuñ ko sax seytaane laay doon soo xam ne si ne ñeent fukki fan ci lay wër suuf si dajal ko dafay woote ca la woote ku ko ca fekk génn ko ci diina ji ku ko ta ak la may woote yëpp yàq laay doon ci diine ji ku fekk ku ca fekk eh, safara nga jëm yàlla dana ko jox ay kéemaan yu bëree bëri lépp lu doomu aadama yi bëgg dana ko am bu dee alal da koy bërile bu dee mbooloo ma koy topp dafa koy bërile bu dee kàttan da koy bërile jiitu ñeent fukki fan ci lay wër àddina bi dajal ko buñ ko waxoon bu njëkk dana la jaaxal waaye warukaay yu bari yi wan na la ne àdduna wëreelu kat mën na ko wër jamono boo xam ne benn jamono bu gàtt lay doon. jamono bokk na ci yi ñu waxoon ne dina ci am jant bi fenke ci wàllu soxu bi feeg ba loolu di amee nag feeg gisagula ko rek xamal ne képp ku am bàkkaar bu ko tubee dañ na ko nangul waaye kere boo xamee ne bi ni loolu am na bunta tuub tëj nañu ko bunta tuub ci nit kenn mooy bu demee ba xam ne commencé nañ yëddu ruuxum tëjuñ ko ba mu feebaree tëjuñ ko ba mu yaakaar ba mu yaakaar ne dana dee tey tëjuñ ko ba mu wóoree ne tey ci ngoon lay dee ñu koy door a tëj ba nga xam ne tàmbale nañ yëddu ruuxu ba mu toll ci baat bi ceeb booba bu tuubee ñu bu dee xeet wi nag ku tuub rek ñu jégal la fekk na baa ngi waxee ne jant bi mu ngi fenk ci wàllu sow bi yonte yàlla Iisa wax na ne dana des fi mujj ak jamono ak des fi yonte yàlla Muusa yonte yàlla Iisa mu ngi bokk ci màndarga eh, eh, dikku saa balaa saa de ñëw dana am ñetti xew-xew yu rëy rëy rëy boori penku bi dañ ci dégg ñu ne suuf wan na fa lu yaato yaato yaatu boori soxu bi dañ ko ci dégg wéyu dañ ko ci dégg ndax mooy yi ñu daan dégg nii wala bu ko gën a rëy lay doon xam amagum naam wala amagut xam-xamam yàlla la bi mujj nag mooy sawara woo xam ne wii mu ngi déparé boori yaman eh, di dàq nit ñi di leen jëmale ci suuf su nga xam ne fa lañ leen ay fangee gannaaw loolu nag bu amee nag fekk yaajooj ak maajo kii nga woon masiwu dajal ñëw na ba yàq suuf si ci diggante boobu ci la limaamu Mahdi yu di teew bu teewee moom mooy rey masiihu dajjal gannaaw dem ak madiyu la yonent yàlla Iisaa di wàcc gannaaw dem ak yonent yàlla Iisaa nag la borom benn ngelaw loo xam ne lii nii bu ñëwee li fi desoon ci gëm yàlla yëpp lay yóbbu su ko defee nag gëm yàlla dafay jeex ci kaw suuf si moom la yonent bi wax ne bés ci baa mooy ñëwee ñu fay fekk ay nit ñu gën a xées ci nit ñi la doon nii daal moom la ko téere yi nekk dene mooy màndarga yi wax ne yéen mooy màndargaam jamono dafañ ko ne boo ko gëmulee doxaloo jullit soo ko gëmee jullit nga dugalañ ko ci kaayada boobu ne bala ngay doon jullit da ngay gëm ne wante yàlla insa dana dikk wala dikk masiihu dajjaal dana ñëw wala du ñëw madiyu dana ñëw wala du ñëw dogaluñ ko ci buntu soo ko gëmee jullit nga soo ko gëmut dogaloo jullit ko foofu ñu ko dugal ci buntu ay xam-xam la yoo xam ne yéen fekk nañ teer yi bind ko lii nee nañ ci borom xam-xam lañ ko jëlee lii nee nañ ci yonent bi lañ ko jëlee bind nañ ko tasaare nañ ko wax nañ ne bokk na ci màndargaay bu njëkk jamono nag dama dem ba xam ne li lay xamatuñ ko moo tax ba ma ci jaaraat pour pour fàttali ko rek indiwu ma ko ne lu war a gëm la indiwu ma ko ne lu war a weddi la maa ngi indee ne dañuy wax ne bu demee ba xamatuñ ko xamal ne mu ngi waaj dikk nella seena ah eh? innakum naka yéen wa maa la xaya tambudoona da ngeen jaamu ko min doonillaahi walis borom bi asaku jahannama matam jahannama lay antam yeen waari doona way root ngeen laa ñeexal jahannama yeen ñee di jaamu loo xam ne ne doolu yàlla xam leen ne yeen ak li ngeen ay jaamu yépp matam jahannama la jàng nañ ko yoon yu bare bare bare mooy xerem xerem xerem danay doon ab tabax xerem danay doon aw doj xerem danay doon aw nag xerem danay doon lii danay doon laa xerem nay dem ba nekk doom aadama xëy mën naa dem ba nekk idée nekk ab xalaat boo xam ne bii ne ci yaw la nekk xëy mën naa dem a dem ba nekk ab xam-xam boo xam ne bii ne moom nga gëm jàpp na mooy lépp luñ jaamu lu dul yàlla rek loolu la moom la ñuy wax xerem luñ jaamu lu dul yàlla nag ak ko doon jaamu ñoom ñëpp la wax ne xasabu jahannama mattam jahannama lay doon antum yéen waari doon wéyal woon ngeen laa ñëwaat ko. hatta isa futihat bu xubbeesee yaa jooju wa maa jooju at maa ngi noonu di dox de di dox di dox fekk rek ba ñu xubbee yaa jooju wa maa jooju ci seen place boobale boobu ñoom ñen si loolu ñu ngay gaaw min kulli hadabin ci bépp tund waxata daba jege si alwaxdu dale alxaqu bay dëgg ubbi nañ yaa jooja ak maa jooja dalee dëgg bi jege si na te mooy tabax taxaw saa te saa yi lu may moom saa xesatun aji bokkeeku la absaaru lasina gis ñi nga xam ne yaqooluna kafara wédd nañ kere boo xamee ne bi daleeb yàlla bi nga xam ne ci la waxee ne ci la àddina tukki jege si na ñu fay fekk lay seen màndarga mooy koo ci rek bët baa nga fokkee ko mu ngay tiit di daw di jàq xamul lu muy wax moo naan yaaway la naa woon nañu suñu te tabaxte ku naa nekkoon nañu fii xam lan ci càggan an menaasa ci lii di ko lii eh, eh, defuñ ci woon suñu xalaat xar ku naa nekkoon nañ fi xam nañ ci càggan min haasa ci lii te mooy waxtul xaq bi ba li fi nekk sax ñun ku naa nekkoon nañ xaalimee di way tooñ ne comme naka yéen moom maa la nga xam ne tax bu doon da ngeen jaamu ko min doon laay walis borom bi asabu jahannama mattam jahannama lañ antum yéen waari doon woy root lañ laa yéen ñëpp waari doon woy root ngeen laa ñaal jahannama law kaana bu nekkoon xawla ñi aalihatun de yàlla maa waraloo ha du miroo wa kulun képp ci ñoom xaayitoon way bel lañ fiyaa ci ci jahannama safiirun hajjat woom ñoom fiyaa ci jahannama layes moom duñu déggati duñu dégg kenn duñu déggante ñoomu neen sax duñu yégante ñoomu neen duñu xamante ñoomu neen benn arab bu mën waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu taala wa sallam ne ko xeesa jaamu nañ ko kon xanaa nga safara la jëm yàlla tontul ko ci alxuraan ina la see naka ña nga xam ne sabaxat yéet na ndamam ñeexale mën naa ñun alxusnaa jëf ju rafet walaayka ñooñu mu faatoo ñu ñu sóor lañ xanaa ci ñoom xeesa ña ko doon jaamu doon moo leen ko santoon amee wutoon tam ci coobareem te borom cër la yàlla jox la ko cër ba pare mucc la ci safara laayes moo duñu dégg mukk xasisa waña xam safara duñ ko dégg mukk boom ñoom xaali doon way benn lañ fi ma ci la nga xam ne istahaat sopp na ko anfusuhum seen bopp te fañ fañ nekk te mooy àjjana luñ bëggal seen bopp rek dana dana leen fa fekk laa yansunoom du jàqloo leen alfaçon njàqare al akbaru bari aji màgg waxtu na laqaawam dana dajeeg ñoom almalaykatu malaaka yi ñu leen ne wax ne ñu leen ay ndokkeel ñu leen xaasaale yow ma ko mooy seen bis àll si bis ba nga xam ne ku dum nekkoon ngeen tongo doon dee fa tëkku leen bés ngay ñëw de mooy tukkal àddina yaa ma nat yi bis ba danañu taxañ asama asamaan ka tey si julli li ko taxañ ak waa ji ñuy wax si julli lil kita lil kitaabi ñeel téere wala lil kutubi ñeel téere si julli mooy kan mooy bindkat bu ne mooy ndax ñu ngi jëlee ci baatu sujj ji firi kayit bindkat bu ne su bindee ba pare la mooy taxañee kayitam ba pare teg ko fële bisa ngay dikk noonu laa di taxañee asamaan si wala dafa am ku daan bindal yonent bi tuddoon si julli wala malaaka mi xam ne mii nii mooy taxañ suuf asamaan si moo tudd si jilli li yàlla wax daal moo dina daal tax asamaan si dina ko taxañ ni ñoo taxañee kayit kama ba da naa ni ki ñu tàmbali woon awal xalxan njët benn bind noxee doo ni lañ koy delloo bu njëkk ndend rek moo fi nekkoon awalam yaral la seen kafaroo ana samawaati wala kanata rattan fa fataqnaahuma booba da fi nekkoon jenn jëmm moo fi nekkoon jëmm jëmm moom ci mujj nañ xaajale ko def ko ay jëmm léegi nag dañ dema dem ba yépp dañ ko ñaar teg ko fële fa fa mu newoon dara dootu fa nekk loolu wax dan dalee la eh, xale naa boo xam ne warlu nañ ko inaa naka ñun nag fenyi li ne wooyu def lañu lii nga xam ne moom lañ dalee bés ngay dëkk boo xam ne bi asamaan si dañ koy taxañ te ko fële comme ni nga xam ne nii la bindkat di taxañee kayit yomb nañu lool wal xar katam naa bi nañu fi sa boor ci téere bi ñëw sa boor min baadi zikri ci gannaaw lawhul mahfuz zikri dañ ko njëkkee bind ci lawhul mahfuz fa lañ ko njëkk ak bind gannaaw ñu bind ko ci sa boor ci bindoon mooy ni anal arda naka suuf sile suuf si àjjana file yële saa dana doon na ko ibaadiye e suma jaam asaali ñu def way xiw bindoon nañ ci sa te lañ fa bind lu am la balaa ñu ko faa bind ba ni zikri bindoon nañ ko ci gannaaw buñ ko bindee ci lawul mahfuus zikri lawul mahfuus la bindoon nañ fa ne anal arda nag suuf si àjjana yële saa dana doon na ko ibaadiye e suma jaam asaali woon ñu def way xaasiyatu saawee suuf si àjjana la ko firee suuf si àjjana jaamu yàlla yi xiiw yi ñoo koy dëkkee wala xar katam naa bindoon nañu fi sa bool ci téere bi ñoo wax sa bool min ba di zikri ci gannaaw bañ ko bindee ci lawul lawul ma foos anal aat na naka suuf si le yeddu sa aat na doon na ko xibaadee sama jaam asaali woon ñu de woy yiw gis ngeen foofu ngeen nekk ci réew yi noonu yéen jullit yi amu leen fu ngeen jullee sañu leen ay feeñe sax ni yéen a julli amu leen fu ngeen tasaare seen diine ji sañu leen ko sax waaye toog leen rek eh, nekk leen ci lu baax nekk leen ci lu xéewee bés ngay dikk yëfal yenn ay kontoon noonu ñëpp yeneen mujjee nekkee ci seen place yi kon anal arda boobu kon suuf suuf la soo xam ne si dañ ko doon diggante yàlla Muhammad ak saabaam yi ci kaw ci suuf si àddina bi ci kaw suuf si ne noonu la ko Ibn Asor déggee moom na fi aasa aji nekk la ci lii la balaa xam ak jotal la xam ñaar am na ñoo xam ne abidina way jaamu yàlla lañ wa ma arsalnaaka wu ñu la illaa rahmatan ndara yan mande lil alamin a ñi xal bindéef yi yónni nañ la waaye sax yónente gi lépp yan mande la ci bindéef yi yépp nag bindéef yi nga xam ne ay jullit lañ am nañ cee ci yan ci ëpple ñi nga xam ne ñi ni ay nit lañ ci duwuñu ay am nañ cee ci yan gi doonte nga xam ne jullit yi ñoo leen ci war a ëpple ñi xam ne ay bindéef lañ waaye duwuñu nit am nañ cër ci yërmande gi ba ci malaaka yi am nañ cër ci yërmande gi nga xam ne moom la yàlla yónni yónni yàlla Muhammad kon ne leen innamaa yooxaa naka des na wooyu illee jëm ci man seen borom ilaan borom la waahid muy ma wooyu daal lu yomb la moo ne borom daal kenn ngeen ci am mooy borom asamaan ak suuf waal antum ndax yéen muslimuuna wooyu omatum ngeen ñi al borom boobule fa inta wala bu ñu dumóoyoo fokkul na leen ansantukum ah, xamal naa leen ala ah, sawaayen ci yemoo wayen adduna den man may xam akare mun aji jegeñ la am baxeedun wala aji sore la maa la nga xam ne tuma doona na tëkku leen ko inoo borom bi ñaa la mu na nga xam ak ñaa rabbiral minal xawli ci wax ba nee la mu xam ne itam màttatu mooy li ngeen ay nëbb bu ngeen waxee bu xëy xam ne bu ngeen nëbbee xam na ween addana den may xam laa loo amaan na fitna tun fitna mooy ñëw wala wala bànneex mooy ñëw yàlla moo xam moo leen lan mooy ñëw laa loo amaan na fitna tun fitna mooy ñëw la ko ñaan leen wa mataan wala bànneex illaa yéen fekk jamono xool loolu la waxtu da jàng keneen ñi ñuy jàng xaala allah rabbi yow sama borom unkum na nga àtte bil xaq ci yàlla na nga àtte sama digganteeg yéefari bil xaq ci dëgg wa rabbuna suñ borom arrahmaanu mooy borom bi almustaanu mooy ki ñuy dimbali ko alamaji da nga xam ne tasifoona da ngeen melal ko ci loo xam ne li ne yéen a ngi koy wax rek waaye dowul dëgg baatu tasifoona bëri na ci alxuraan waaye waxi teg yi la mais foo ko fekk rek alamaji la nga xam ne takk si boona da ten ko foo ko fekk rek baata fen dafa wut waaye alxuraan dafay wax waxanu tegg yi mu ne alaama si naa xam tasi boo da ngeen melal ko da ngeen melal waaye foo ko fekk rek baat dëkk si bon lay wut ay lu mu bëri bëri nag ci alxuraan subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun waaye alxuraan dafay wax waxenu tegg yéen ñu toppandoo ko ci ñu itam nag bu fekkee ku toll ni yàlla mu ñu sàmmante tegg rawat na bindéef moo xam ne nii nii eh, yaa ngi toll ci yar na subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun